màggal yeeg seeti na kuy murit sa deret yëngu na jamono ji ñu ngi fii ci rue 10 ànd ceek kii di mu Xaasimu Daabu Baye Karim ki nga xamante ni dafa jeex tàkk ci Serigne Touba ak njabootam mu ngi tourné clipam fii ñu xool nank nan lay demee ak lan la ñuy jox ñu ànd ak moom dem bi biir màggal ga dem biir ni ni kanamu sëñ Abdou Karim jëftanteeg moom lu baax ay ca ñu dem ange billah bisimillah ina waadi yàlla barke Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibra Fall lamp Babal Mouridina ma déggan Demba ñu ngi sant di suñu yaakaar kooku di sëñ Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq di delloo njukkal Baye Mourid Mbaye Sadikh bi waa comme ni ngeen ko xamee rek Touba jëf jël bi ci Medina nga xamante ni Papa Lamine Mbaye mooy euh, jëwriñ bi fa la ñu dem tey nga ne si kii nga xamante ni mooy xaasimu daa te ku wax xaasimu daa Baye Karim sa xel dina dem ci zikrullah te ku sa xam sa xel dem ci zikrullah sa xel dina dem ci safar gi nga xamante ni dugg ci nañ ci te xaasim tey dañu ñëw fekk ko fi muy tourné clip di waajal lii di 18 safar xaasim ziar naa la. Mati delloo naa la ziar. naka nga def. maa sant bu baax a baax a baax a baax. waaw jërëjëf borom Touba jërëjëf borom tuba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi sant yàlla bu baax julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant sunu sëriñ. sunu lépp te tamit day tey ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalif général kullu murit mu yàgg fi te ànd ak wér mu la koy ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall di ko ñaanal sama wasila Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makarimal axla noonu laa koy ñaanale sama kilifa Baye Mouride Mbaye Sadef bi di ko ñaanal moom it mu yàgg fi te ànd ak wér waaw jërëjëf. waa kon comme ni ngeen ko déggee rek mu ngi ñaanal Baye Mouride Mbaye Sadikh bi man tamit maa ngi koy ñaanal mu gudd fan lool te yàgg fi xaasim si suba ba tey ñu ngi fii ànd ak yow ba Medina fekk si la waajal safar gi di génnee clip lu waral loolu. Ah, nekk si liggéeyal sëriñ bi rek parce que si léegi ñu fekk nii tey dañoo bàyyi ñuy lépp nekk ci te boobu ba léegi ñu ngi ci boobu ba léegi ñu ngi ci moo tax ngeen ñëw tey fekk ñu fi. ñuy tourner ñu doon tourner clip am benn son bu ñu defaroon ci màggal gi muy safar wax ci Serigne Touba affaire bu affaire bi doy waar daal ngeen ñu fekk tey daal ñu koy tourner barki maam Seydou Fall. comme ni nga ko waxee suba ba tey ñu ngi ak yow di tourner clip bi te gis nañu ni yomb depuis 9h ba léegi gars yi ñu ngi fi naka nga dundee mbégte boobu ndax woote ñu wuy si la neex na. billaahi Serigne Touba xam na ne man gars yi aw ma seen fay aw seen fay de barki maam Seydou Fall dama bëgg essayé dama bëgg billaahi wallaahi tallaay maa ngi sant sama papa bu baax sama papa bi ma jur maa ngi koy sant bu baax a baax a baax mu ngi ko jàpp si yëf yi la barki maam Seydou Fall sant sama yaay di sant sama gars yi may àndal suñu waa Daara di sant yaay Fall ak Baye Fall maa ngi siy jiital Palamine maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant waa Gàddaay gis nga leen seen contestant bi gis nga leen. naa leen bu baax de. man laa leen defaral. loolu la ñu bëggoon nga wax ñu ko. naka ah? woote ñu wuy si la à moins de 72 heures nga préparé fi tournage clip ñëpp ñëw. ah man de loolu damaa yéem ba léegi léegi man mu jëmm ju xeebu gi loolu de moo ma jaaxal ba léegi aw ma seen fay jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax wóor na Serigne Touba dañ see jàpp bu baax a baax xam nga nee woote ñu wuy si la yombul mais mun nga loué 16 loué basse mais jaam ñi kenn mënu leen loué fu ma xewlee barki maam Seera Fall ñu bàyyi lépp ñëw wóor na Serigne Touba loolu nag dama leen si sant bu baax a baax a baax a baax waa Gaddaay di si jiital soxna May ñoom maam Diarra Penda Mbaye Aminta ah Marie Sarr ak Yaay Fall yi xale yu ndaw yi. ñoom ñëpp maa leen di sant barki maam Seera Fall di sant sama waa koñ surtout sama staff bi dama leen di sant bu baax a baax ñoom ñi ñoom it son bu duggee studio ñoom ñoo tax parce que ñoo yëgal seen xéwal jox ma nee ma demal dugg studio barki maam Seera Fall staff bi waaw di sant Arma tamit ku jàpp ci mbir la laxasaay gars yi sol nii nduróole ko moo fay waaji barki maam Seera Fall di jàpp ci mbir bu baax a baax a baax tey bu ma demee tamit ba tourné ba war a tourné clip tey. bu affaire yi yembee nii benn jëmm la ñu koy Rio taalibe Baye la mu ngi nii taxaw sama wet taalibe Baye Niass moo jàpp ci mbir yi moo tax clip bi am barki maam Seera Fall billaay wallaay ma koy sant bu baax a baax a baax baax di ko ñaanal lépp lu bëgg moo xam yàlla ko suñu borom defal barki maam Seera waaye li ma xaw a jaaxal mooy euh, clip du boo xamante ne en une semaine lañ nga ko génnee clip bi barki barkaat démb xaw ma barki démb la ñëpp xam ne da ngay tourné actuellement tournage bi ñun am nañu yaakaar ci ni clip bu génnee dina dóob dina nekk loo xamante ni ñëpp dinañ ko jëriñikoo ndax euh, comme ni ma ko waxee sànq ba tey en moins de 72 heures nga mën ci préparer loolu naka nga dundee loolu parce que yombul 72 heures nga mën a génnee single bëgg cee tourner clip te bëgg mu génn dans la semaine loolu daal mbégte rek mbégte laa si dund tey sant sëñ Tuubaa te xam ne lépp mooma loolu képp di sant sëñ bu baax a baax a baax a baax a baax que nu ñu mel sëriñ bi la lépp lu nu am sëriñ bi la jël naa lépp def ko addi Serigne Touba barki maam Serigne Fall. léegi kon mën nañu xam ne euh, kii di Khassimou daal mu ngi def wàccaayu màggal gu baax a baax ndax li ñu gis ci clip bi nii rek xaw na dalal xel. lu doy war la lu doy war barki maam Serigne Fall man na jaam ñi di ñaan rek parce que danoo bàyyi lépp nekk ci lii nañuy ñaanal rek tàll nañ suñu loxo daal nañuy ñëpp ñaanal barki maam Serigne Fall. waa kon macha allah comme ni ngeen ko déggee rek Khassimouda ak son groupe nga xamante ni mooy naka Touba Jëf Jël ak Kër baay Fall ñu ngi waajal lii di 18 safar bi te li ngeen gis nii yëpp euh, tuuti la rek bu ñu demee màgg gi allah di ngeen gis lépp dinañ ko fësal. alors kon ñu ngi koy souhaiter un bon màggal dinañ ko souhaiter à vous tous aussi di ñaanal yoonu jàmm àca bi gëpp ñu dem ci 18 safar bi.